bi mettiwul noonu te am nañ yaakaar ni daañ ci génn am seen diplôme bu leen mën a yóbbu ci daara yu kawe yi di université yi nekk ci réew mi daañ ci dikk ak ci biir xibaar yi lu tollook euh, ñaar fukk ak benn milliard ci suñu koppar la kii di sa Seck joxe ngir génn ci prison bi ñu ko xam ci protocole de Rebeuss kàddu yooyu tukkee ci maître Ousmane Seye waaye ñi fare ak sa Seck dañoo dàq kàddu yooyu di sàkku ci maître moomee mu fexe indi ay firnde yuy wane loolee nga xamante ni yëkkandi ko ci ay kàddu daañ dikk ak yéen mbokki ci biir yi mbirum jinne te danaka bëss bu nek ñu dégg ko ci tassum xibaar yi loolee tax ba rédaction bu DTV amal ci app gëstu jëmele ko ci ñoñ nga xamante ñooy taskatu xibaar yi mu melni ndax dañoo ëppal ci mbir momé jëm ci traitement ki di Boy Djiné laaj yeeg tontu yi mbokk yi daan ci dikk ci biir xibaar yi xam ngeen ni ki tey la ñuy ci aduna bi yépp bis bi ñu jagleel askan wi di journée de journée bi ñu jagleel li di population mu melni ren nak gouvernement bu Sénégal mu ko jagleel ñi nga xamanteni ñoy jigen ñi te sen at soriwut loolu mu mel ni ci ñooñe lañu bëgg sukkandiku ngir euh, suqali koom-koom réewum Sénégal mbokk daan ci dikk ak yéen loolee gën a fës ci bopp xibaar yi yaatal léegi léegi lay doon jërë ngeen jëf yéen mbokk yi baaxu seetaan seen chaîne de télévision la DTV d'alen leen ak jàmm ci xibaar yi ci ngoon gi ñu koy ak baccalauréat atum 2016 door nañ ko niki ki tey ci suba fépp ci réew mi toll nañ ci ñaar fukk ak téeméer ñaar fukk ak juróom fukki junni ci ay candidat yoo xamante ni ñu ngi sàkku am lii di seen diplôme bu leen mën a may ñu dem ci daara yu kawe yi ñu dippe université fii ci réew mi daanaka toll nañu ci fële nga xamante ni mooy lycée Blaise ci euh, ñeenti jury ca lycée Kennedy foofu ñetti jury lañ fa nemmeeku donte nag stress am na ci ñooñu di ndongo yi waaye ñoom jàpp nañu épreuve yi niñ ko dooree baax na lool ndax euh, daanaka dara méttiwu ca bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu kii di ay satu Tall doxant na ci yenn lycée yi ñu teewlu du ni mel ginaaw ben at ci li jàng bi ak jàngale bi yëngatoo legui nak ñu ngi tollu ci jamono yu mujj manam ci examen yi lu tollu ci 152575 candidats nag ñooy def ci Sénégal gi yépp li di examen baccalauréat bi ay candidats yu ñu tass ci ay centre yu bokul fii ci Sénégal fi nak ci lycée John Fitzgerald Kennedy ñu ngi fi am ñetti jury yu nga xamantene bo boo leen boole yépp daf lay jox 985 candidats bu ñu sukkandiko ci président jury 969 bi nag matukaay yëpp jël nañ ko fii ngir examen bi jaar fi yoon. démarré nañ ko si jàmm euh, à partir de 8 heures donc ñaari série ñoo fi am série s ak série euh, L2. Euh, série S2 bi téemeer lañu téeméeru candidat lañu. série L2 bi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent candidat lañu. nañ tuuti absent mais bëriwuñ donc si kanam tuuti dañu xam nombre exact.

yàlla dinañu ci may ndam. pour man de épreuve yi méttiwul franchement parler soo jàngee rek mën nga si génn daal. def nañu anglais parce que mooy suñu LV1. épreuve yi safuloon euh, non, mais du ma wax tamit yomb na mais voilà on a fait notre mieux incha allah. dañoo am benn benn pause trois heures de temps léegi damay essayer xoolaat sama cours histoire géo rek. maa ngi ñaan yàlla affaire yi dox mais bon je.

mais indil nañ ko ay médicament man de stressé wu oh, ma carrément peut-être après mais instant yi moom je suis zen quoi. yenn majeur kese ñoo ma tiital mais gaawul. Oh. comme yan comme histoire géo. parce que dates yi année yi ñu war a jàpp dafa bëri ak yoon. stressé naa moom mais yàlla baax na def naa li ma mën daal. kon nag li nga xamante ni mooy bac 2016 daal dinay tàmbali tey fii ci Sénégal li nga xamante ne mooy épreuve yi dinañ ko def ci ñetti fan ñetti fan yu nga xamante ne nag dafay boole stress ak jaaxle waaye dañuy faral di wax lu waay ñaq jëriñoo ko mu ngoog ay Diop Tall ci wàllu njàng meek njàngale mi la ñuy desandi fii ci Afrique lañ ca nemmeeku mooy ñii di jàngalekat yi ni leen di wasaare ci gox goxaat ngir ñu amal seen liggéey danaka doon lu indi ay jafe-jafe bokk na ci daanaka gox boo jël nga méngalu ko yeneen gox li ci nekk ci ay jàngalekat uute nag yeneen gox la fa nekk ngir saafara lu ni mel waral ba kuréel bi di pôle UNESCO nekk fii ci Ndakaaru amal ab ndaje boo xam te ni seen xam-xam màcc jëm ci wàllu njàngale nekk ci Afrique saw jant ñoo ci dajaloo ngir gis-gis ak xalaat jëm ci ñu ñu gën a def ngir dooleel ñi di jàngalkat yi ba lépp lu ñuy sàkku ci ñoom jëm ci fexe am jàng mucc ayib ñu fexe ba nekk ca ñu ànd ceeg kii di Ndeye Fatim Lo ci atum 2015 njiitu réew yi ak yu gouvernement yi dañoo yeesalaat agenda bi jëm ci njàngaleex njàngale mi ci atum 2016 ak 2030 ngir fior 2030 jigéen yéex góor yëpp ñu mën a jot ci njàng bu mucc ayib te dëppook yoon te duñu fay dara li ni mel nag pour mu mën a am faw ñu am ay jàngalekat yu doy te am tàggat bi wax. il faut recruter wut ay jàngalekat yu bari moo ñu euh, war te xam nañu ne dëkk yu bëri dañu jànkoonteel ay jafe-jafe ci ña war a jàngale li mel nag tax ñu war a saytu naka la ñuy def ba xool mbir yi jàngalekat yi di taxawee ak lañu ci jot a am ngir tab bànneexu askan bi. rawatina ci walu njàng mek njàngale li fi ak atu 2030 répondre au mieux euh, aux objectifs euh, de l'éducation à l'horizon 2030 lël bi njëriñam moy fexé ba xamlé nañuy tasee kat yi ci daara yi ngir ñu fësal seen njëriñ ci dëkk yi nga xamné ne xamuñu nu ñuy saytoo kat yi fa am ngir taxawandi ci kat yi dañu wara xol xool seen i koppar lan lañ leen di jox itamit lu mëna mengo ko seen bëgg-bëgg waaye jafé jafé yi ñu némé ku ci dëkk yi nekké fi ci Afrique mooy yenn ci parti yi dañu bëri ay jàngalekat te ñenn ñi sax doonuñu ko te moo ne jamono ji ñu nekk dañuy jànkonteeg jafe-jafe ki xam dëggantaan te mën a jàngale li war nag mooy naka la ñuy jëfandikoo li nga xamante ne jot nañu ko am ak naka la ñu koy dàbbalee ngir mu gën a xarañ te bu boobaa itamit mu méngoog la muy jot ci koppar ngir mu gën a mën a liggéey ci anam bi mu ko soobee dëkk yi bokk ci lël bi dina leen ñaax ci njëriñal séddale jàngalekat yi rax si dolli dinañ weccee xalaat ngir ñu gën a fësal doxalin bi wax ngir ñu jàppale dëkk yi ñu sukkali ci li jëm ci séddale jàngalekat yi Ndeye Fatim Lo ñu wax ci leneen mu aju ci wàllu politique ay mbir yu yees dikk ci mbirum lii di protocole de Rebeuss te ñu ciy tudd kii di Idrissa Seck mi jiite parti bii di réew mi bu ñu sukkandikoo ci cadre maître Ousmane la mu xamle mooy ni kii di Idrissa Seck dafa engagé woon ne joxe ci lu tollook ñaari maanaam ñaar fukk ak benn milliard suñu koppar ngir génn kaso kaddu yooyu nag ña fare ak Idrissa Seck dañ koo dàq ba mu set weddi ko jàpp ne kii di maître Ousmane Seye la mu war ci moom mooy mu indi ay documents élément yuy firndeel kàddu yooyu mu yëkkati yemuñu ca kii de maître wala bokk Thierno Bocoum fare ci réew mii la mu xamle mooy ni daanaka li mu yëkkati tekk lu mooy complot jëmale ko ci seen leader boobee di sa Seck ñu ànd ceeg Codé Ndiaye Idrissa Seck dafa xaatimoon ab document ngir rek remboursé lu toll si ñaar fukki milliards ak benn loolee nag ngir rek daal di génn ci kaso bi ci mbirum chantier de Thiès ki biral yooyee kaddu nag di maître Ousmane Seye doonoon avocat nguur gi si mbir moomule yile kaddu nag kii nekk responsable ci parti réew mi di ko weddi ba mu set wecc moom li mu jàpp mooy yooyee kaddu dara amu ci su dee da nga nekk avocat nga wax na ne benn document am na li fa nekk donc su doon secret professionnel la secret ba dindi nga ko parce que nee nga document ba lii moo si nekk lenn rek moo des Moy document ba nga jébbal ko askan bi ñu xool ko du def parce que document amul. képp ku ñu cité ci mbirum protocole bu rëbës weddi nga yooyee kàddu ba ci sax avocat bi moom mi nga xamante ni li def mooy ab wax waxeet ci mbir mi bu ñu sukkandikoo ci kaw kàddoog Thierno Bocoum. ñi mu cité wax nañu ba pare Pape Sambara Diop bu mu wax ba mu defee audition à la le 5 mars 2007 dafa taxaw biir DIC lu wax. moy que ne protocole Bobu ñuy wax ne Idrissa dafa wara rembourser ak dafa wara joxe ki amul Me Nafissatou Diop Cissé def na émission le 7 mars 2007 2000 2013 plutôt mune protocole Bobu, amul maître maître Ousmane Seye bii wax fi ko waxé waxoon na fa leneen lu ak lolu muy le 17 mars 2013 mu ne protocole boobu invention presse bi la amul. moom nag muy xam ne lii yëpp ab complot la bu ñu def jëmale ko ci leaderam di Idrissa Seck. li lii yëpp lu mu lu mu lu mu feeñal rek mooy complot boo xamante ne euh, dafa am contre Idrissa Seck te mu yàgg lool mais dañ jàpp ne ne ñu koy def suñu amee énergie bu ñu bu ñuy mën a joxe nañ ko orienté si bëgg-bëggu askan bi parce que askan bi ñu leen di xaar si ay résultats. ba léegi amuñu ay résultats. jokkante kàddu yi nag dafay rek fësal mbirum protocole bu rëbës si jamono yoo xamante ne ni nag ñu ngi wax mbirum protocole bu Doha lu mu ci mënti doon nag Idrissa Seck moom nee na képp ku yor protocole mi ngi lay ñaan nga publier ko ci presse bi. Codé Ndiaye euh, dañuy desandi ba léegi ak politique ànd ak coordination départementale parti socialiste nekk ca Géejawaay ñoom ñaawlu nañu démission kii di Bamba Fall maire bu Médina ci bureau politique bu PS ñoom la ñu jàpp mooy ne loolee warta am teewul nag ñu ngi wane seen firnde ànd ak ki nga xamante ni mooy secrétaire général bu parti socialiste di Ousmane Tanor Dieng ñu ngi ko xam ne ni ki démb ginnaaw ab assemblée générale ñu ànd ceeg Abdoulaye Wadianga Ibrahima Togala Bamba Fall di meeru Médina dafa xamle ni moom niki tey ji bokkatul ci bureau politique bu parti socialiste lu ni mel la coordination départementale bu Géejawaay di ñaawlu. Euh, ñu ngi regretter lu sunu camarade Bamba Fall ne dafay génn bureau politique gënuluñu. socialiste yooyu jaaree fa di xamle ni ñoom ñu ngi bootu ba tey ci ginnaaw seen secrétaire général di Ousmane Tanor nga xam ne ñu bëri ci ay responsable socialiste bëggatuñu mu jiite boobu boobule parti. ci biir waxtaan boobu nag dégg ngeen ko léegi liñ ci jiital moo ñëpp wax soutien bu ñuy am ci camarade Ousmane Tanor addu ci mbirum au conseil des collectivités territoriales cordination bu géeje géejewaay xamle na ni institution mu ni mel am na njëriñ bu baax a baax. da gis que euh, euh, euh, yenn saa yi. maire a ak conseil yi du wax le même langage que état bi ak gouvernement bi ci yenn gox donc te tamit day am ay problèmes yoo xam ne ñoom li ciy wax kenn du leen déglu léegi nag kuréel bu mel noonu bu ñëwee dina approfondir décentralisation bi dina mën a tax que euh, maire yi collectivités locales yi di mën a dialoguer di mën a bu baax avec état bi parti socialiste bu Sénégal jamono ji mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe gannaaw bu ñu gisee nii ñu bëri ci ay responsable bëggatuñu Ousmane Tanor mu jiite boobule formation politique moo waral ba tey jii ay réeroo di am ci seen biir boobule formation Abdoulaye Wadjanga, jamono Bobé, ñi di cadre jeunes yeeg euh, ñi di jigen ñi nek ci parti Bidi di APR nek ci département bu Matam ñom ñu ngi xamle ni tay soutenir Senbok mbokk mi di le député Farbangom mi ñu doon ci fan yu ñu génn ni dafa yëkëti ay saaku ciép diko jox ay euh, kilifa ñu dara amu la am kay moy complot jëmele ko ci leader bi di Farbangom té lolé duñ ko nangu ñu ci cadre kenn ci ñom di Amadou Demba Diallo ci micro Abdoulaye Wadanga li am ba jeex moo di ne dafa am ay nit ñoo xam ne Farba Ngom moo leen dérangé bëgguñu taxawaay bi Farba Ngom taxaw ci biir département de Matam bëgguñu jegeyante ak saafonte bi am diggante Farba Ngom ak président de la République Macky Sall ñoom ñooy jéem a yi di wax faire feu de pouvoir di utiliser loo xam ne ay ay kasaw kasaw pour jéem a tuumaal yàq dalu far ñoom loolu moo am waaye leneen amul te yooyu ñu ñàkk solo ndaxte ay séddale ceeb bés bu nekk Sénégal ñu ngi séddale ay ceeb loolu pour kenn nguuru Sénégal bi mu nekkee nguuru Sénégal ba léegi saa yu kër diine yi xewle am lu jógee ci nguur bi ñu dellu ci ay ceeb ak xewal dem si ñoom ñu séddale donc loolu du gulet li ni mel moo amoon ci la te bi mu amee Farba Ngom li ko sama naataango bi waxee lépp luy président di joxe mu jëm ci maatam ci loxo Farba Ngom lay jaar ci noonee la ceeb jaar ci loxo Farba Ngom ñu jébbal ko ci loxo maire commune ci la ngir ñu séddale am nag ñu ci bëgg a profité pour yàq dara parti B di les réformateurs euh, les démocrates réformateurs te dit di Modou Diagne Fada jité ko amal nañu ab ndaje ni ki di dikkaat ci tollu réew ci walu politique ginnaw bañu ñu bayyi biñu bayyi ki di Karim Wade waye teew ñu sakku ci mom mu anam ñi nga xamanteni mom lañu ko Karim yemuñu ca njox ñom japp nañ ni bëri na ci ay kilifa parti bi di euh, parti démocratique sénégalais ou ici leen ci sen parti tollu nañ ci témèr porte parole jour bi di. Euh, maanaam Saliou Diouf ñu teewlu ay kàddoom. membre comité directeur bu PDS bi nga xam ne ñun moom lañu ñu fa la ñu bokkoon te créé parti bi nga xam ni mooy LDR Yeesal lu ëpp téeméeri responsable yoo xam ne ay membre comité directeur lañ ñoo xam ne ay ancien maire lañ ñoo xam ne ay ancien ministre lañu ñoo xam ne ay ancien député lañu ñoo xam ne ay ancien kilifa lañu yoo xam ne yi dañu occupé woon ay direct ay direction nationale ñooñu tay faxé nañu PDS ñëw adhéré ci sunu parti bi di LDR. mën naa ci cité ku melni ni Alioune Souaré mm-hmm. nga xamni ne Rufisque la dëkk. mën naa ci cité ku mel ni Ba nga xamni momit mo it ancien député ancien maire mën naa ci cité ku melni ni Pape Birame Ndiaye. nga xamni mo moo mom tamit ancien directeur général formation nationale d'approvisionnement ak ancien ministre yo xamni ñu bari jóge nañu tay PDS te nekkoon fa yoroon fa ay ndomba tank nekkoon fa ay kilifa.

te xam ni LDR Yeesal incha allah ak tournée bi nga xam ne tàmbali na ko ci euh, département Pikine mi ngi gis ni ñu bari tey ñi ngi fàq di ñëw donc loolu ñu ci kontaan ñu ciy bëgg di wax sénégal yi aussi li nga xam ne aussi mooy sunu partie bu bees bi nañu ñëw euh, adhéré ci. ginnaaw euh, kàddu yooye maa ngi leen ko doon junj sànq ci bopp xibaar yi muy mbir mu aju ci Boy Djiné nga xam te daanaka bés bu nekk ñu tudd ko ci presse bi waral ba ay laaj jujjut ci jëm ci anam yi nga xamante ni moom la taskatu xibaar yi wala boog ñuy yëngat ci wàllu ni mel di euh, traité information bi ni mel mu mel ni laaj yooyu bokk na ci ndax ñoom dañoo ëppal ci anam yu ñuy gëstoo loole nga xamante ni jëm na ci mbirum kii di Boy Djiné ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu yi nañ seen kàddu ku ci nekk ak gis-gis ba nga ci am El Hadj Moussa ay rëccëm yu bëri ya ñu nemmeeku kaso tax na tey ci kanamu tasukaayu xibaar yi ab vedette la fa moom booy jinne alias du fal bokk na ci ña ñu gën a waxtaane ci bërëbu ndaje yi li jëm ci mbiram nag këru taskatu xabaar yi daanaka bés bu yàlla sàkk ñu wax ci dem sax ba nar ko def ab ci kanamu ndaw ñi na presse bi di tasee xabaar bi nag jëm ci lile kii di secretaire général bu rédaction bu RFM Rafet Louko. dañ ko def ko xamantene ne dañ woy bo jinne dafa melni dañ koy néewal doolé bo jinne dañ koy présenter ko xamantene euh star la parce que dañ koy woné muy wane auto yu luxe gi euh, di def ay une bi né échappé na fi def na lële def na lële bo ci même ministre bi yoré mbirum yoon ministre bi mbirum yoon tontu bo jinne bo jinne dem Tambacounda wax ak journaliste yi foofu ministre moy tontu al ñaata ñu ñoo nekk ci kaso bi ñu xamantene ministre waroon na mën tontu mais ministre waroon woon sax tontu lool moy wane ne jox nañ ko importance boo xamante ñun joxuñ ko ko war ñu ko ko jox. mom rédacteur en chef bu radio télévision communication bu groupe des média gisee neneen taskatu xabaar bi jàpp ne na presse bi di fësale xibaaram jëm ci kii di Boy Djiné ëppul benn yoon. jeune ne pense pas que presse bi def na ci lu ëpp ndax presse bi aussi bu ñu fàttee ne euh, ñi koy animé ci société bi la ñuy dund. fa société bi toll rek lañu toll. ci kanamu njiitu kër taskatu xabaar yi booy jinne du royukaay ci askan bi ba tax na ñoom jàpp nañ ne taxawaayu presse bi ci mbir mi war na rek sukkandiku ci yee askan bi ci sàmba booy bi mu doon. presse bi war nañu xoolaal seen boppam di a def waa ji ab bañ ko def ab ko xamante ne ab la ndaxte boo ñu ne moom du exemple du royukaay. foofu peut-être lañ mën a wax ne des na daal fu ñu jiitalee mbir mbooy fu ñu waxee bo mbirum mbooy diine rek war noo ñoo teg ci wet gi lenn loo xam ne ni daal mën na jëmee kanam société bi. tey bu bokkee ci ñi ñu gën a waxtaane ci bërëbu ndaje yi moom yi nga xam ne jàpp nañu ko ennemi public numéro un réew mi du ko sant lu dul ñan ne ci presse bi yile taskatu xibaar nag di woolu seeni ñoñ ngir ñu gën a saytu nañuy traité mbir moomule ngir rek ottandeku la fi amoon ci mbirum ino ñu bari gisee woon que ni ab héros te yoon doon wéy ci di ko teg loxo El Hadj Moussa Bey ñu wax ci leneen xam ngeen ni ki tey yemoo fukki fan ak benn ci weeru juillet ci lañu ñuy màggal bis bu ñu jagleel lii di euh, journée de la population muy askan wi ci lolé buñu sukkandiko ci ñi di wa ANSD lañu xamlé moy mooy ni daanaka ci atum 2015 lu aju ci walu ñi nga xamanteni amuñu xey bañ ko xayma ña téeméer bo jël tollu nañ ci fukk ak ñatt ñu ci ëpp ci askan wi di ci joxoñ baaraamu tuuma nguur gi waye jeneen lañu japp moy ni ñi ndaw ñi daanaka dañoo manké li di volonté ngir mën jëlee seen bopp loolee di xëy mi ngir ñu mën a sutural euh, seen ko bopp ñu ànd ceeg Codé Ndiaye ci ay leeral. àdduna bi di màggal lii di journée mondiale de la population maanaam màggal lii di askan wi. fii nag ci Sénégal askan woowee ñu ngi ko natt ci lu toll ci 14 millions de sénégalais waaye nag ñu bari ci ndaw ñi amuñu xëy ndaw ñi nag jàpp ne responsabilité yi dañ ko partagé. no état am na ci part de responsabilité jeunes yi am nañ ci part de responsabilité parce que soo xoolee la moo tax jeunes yi am nañ ci part de responsabilité kon du di xaar kenn parce que yàlla du wàcc jox kenn dara kon waroo toog di xaar kenn mais am am am na gis naa ay jeunes yu ambitieux fii nii fi ma dëkk man sama gox. man li ma jàpp man da ngay góorgóorlu ñu fekk si la ci. ndax nit bul baasiwu rek ne damay toog ñu fekk ne ma déedéet yow yaay góorgóorlu def ki kii la gis kat xam ne ah li ngay def kat am na njëriñ ñu fekk si la si mais soo bëggee baasiwu ci nguur gi Sénégal li fi nekk si nit kenn daa xam nu tool toll. ca Medina nag ndaw ñi jàpp ne nguur gi war na mën a dugal loxoom ci wàllu xëy bi rawatina nag daal di rek financé jeunes yi nga xamante ne nii am nañu ay projet soo xoolee benn instant quelque ñoo fiy job boo toogee ñu ne la booy booy Medina yi bëgguñu job loolu ay wax la man damay toog booy bu nekk grand place bu nekk mais booy yi dañ bëgg a job mais amuñu ku leen jàppale. léegi ñi fi dëkk nangu nañ liggéey mais liggéey ni leen koy fayee moo leen dul arrangé parce que sénégalais a gëm boppam xaw ma xaw ma mais booy mit ma xam mooy dañu gëm seen bopp quoi am yenn liggéey yoo xam dañ ko liggéey ñu leen di fay yenn salaire yi yoo ne tamit jaru ko tamit quoi booy xool nit naan lii dama kaa wala bu ma sama nawale bii gisee kat nangam ak nangam liggéey amul nawale amul dara boo sàccut fenoo rek waaw loo liggéey baax na. ngir nag daal di dàkkal lii di chômage bi maanaam ñàkkum xëy mi ñi nag di joxe seen i xalaat. man li may gën a sauvegarder aussi tamit mooy wàllu quartier bi armée bi euh, nañu gën a euh, renforcer xale yi ñu dem armée ñi nga xam ne ñu da nga maam jàng nañ seen jàng mënul demee noonu xam naa ñu forcer ñu dem armée. Dakar gii ñoo si gën bëri ñi nga xamante ni surtout ñoo fi ambulant ah ak ñu fi bëri ñu fi amal seen bopp loo xamante ni boo xool yàlla xam ne ne soo fi génne woon ñi nga xamante ni ñoo fi am xaalis Dakar dara du fi def ndax ñi fi xaaj bi ñëpp dëkkuñu biir Dakar lu waral loolu mooy ñi nga xam ne dëkkuñu fi buñ ñëwee dañuy ñafe ci yenn gox nag ci Ndakaaru ay jeunes yu bëri amuñu xëy ñu bari nag ci ndaw ñu jàpp ne nguur gi moo deful la mu war a def ngir rek mën a dàkkal boobu la situation ñoom nag ñuy xam ne ne ndaw ñi bañuñu liggéey waaye daal ab ndimbal moom la ñu amul mu ngoog euh, Codé Ndiaye jëm ci bis boobee nga xamante ni ki tey la ñu ci Senegal askan yu mel ni kilifa yi ngànk nguuru ko Sénégal li leen yitteel mooy fexe ba gën a dooleel ñoo ne ndaw ñi rawatina jigéen ñi eh, ni ki ren sax ñoom di jigéen ñi lañ ko jagleel ndax jàpp nañ ne am nañ pàcc bu am solo boo xamante ni mënees ko joué jëm ci développé réew mu Sénégal ci loole Birima Mangara doon xamle thème bu ren bi ñu jàpp jëm ci fexe investir ñii di ndaw ñi rawatina jigéen ci lépp loo xamante ni dafay suqali réew réewum Sénégal ñu ànd ceeg Lena Sarr. lu ëpp ñetti million ci ay sénégalais seeni ak toll ci fukk jàpp fukk ak juróom-ñeent ñu bëri ci ñoom njagamaar yi seen ak ak seeni yelleef jotuñu ci num ci waree ñàkk jàng école ñu leen di beddi te di leen di sàkku itam bokk na ci jafe-jafe yi ñuy jànkonteel telsa su ne.

plan Sénégal émergent ci ñaareelu euh, bankas bi gis ngeen ni lepp luy les nit ñi kanam loola xalaat nan ko tek nan fa ay pexé yo xamné dina euh, soxali euh, nit ñi ci lool nak wax ni ñoo ci ni ñi ngi a bi ni am diko seetlu ci yo xamné culture bi parfois moo koy ñi ngi xeex aussi li ñuy waxee eh, excision maanaam xale jigéen ñi ni nga xam ne ñu ngi leen di xarafal. lu ëpp ci njagamaaru Sénégal yi seen loxo jotul seen ginnaaw ci biir plan Sénégal émergent nag réew mi fas yéene def kem kattanam ba taxawu ndaw yooyu ngir ñu mun a sukkali réew mi loolu waral nag ba muy màggal bés bu ñu jagleel askan bi daal di gën a may gët ñii di njagamaar yi. mu ngoog euh, Léna Sarr ñu wax lu ñeel walu tagat yaram ñu dooree ko ak basketball ci jigen ñi ci ak wala bok laaju ci walu final play off basket ñi di wa DUC ñoo mujj dóor AS Ville de Dakar ci différence fukki poñ bañ ca coach ñi di wa DUC la mu jàpp ni défense bee baax liggéey lu tax ñu am ndam boobe ñu tewlu ci cadre ki di Mborike Fall. match bi ñu ko défense parce que suñu à chaque fois ñu défendons bu baax ñu encaissé moins de panier dañu gagné n'importe quel équipe nak mais à chaque fois ñu encaissé plus de 50 ou 60 points on perd lolu le tax man depuis démb ba léegi défense rek la doon wax sen bopp ñu xam ni pour être champion faut que nga nangu défendre défendre nak kenn mënu ko volonté la parce que adversaire bu def li mu bëgg a def du ko métti loolu moo tax j'ai tout fait pour ñoom ñëpp ma def rotation en premier mi-temps pour que ñu noppalu pour qu'en deuxième mi ñu mën a défendre loolu mooy clé de Ginao kaddu yooyu ñeel basketball ñu wax ci euro 2016 xam ngeen ko di Portugal ñoo mujj équipe bii di France benn bal ci dara ginnaaw bu ñu fubalee ci di cent neuvième minute ci la ñu dugalee boobee mu mel ni di Portugal Goulet ñuy gagné loolee di coupe d'Europe ñu dellusiwaat ci lu ni mel Dontene Cristiano Ronaldo dañ ko génne ci ab civière ginnaaw bu mu gaañoo laata mi-temps Portugal daal dina def kéem kattanam ba li nga final bi mu daal di ko jël ak France waaye li ñu ci jàpp mooy ñi nga français yi seen wàllu bopp ñoom ñoo dominé ci premier mi-temps bi yëpp te bu ci occasion boo xamante André Pierre Gignac amnoko. am te bu doon Rui Patricio di gardien Portugal kon lambay ñaaw. Uh, muy occasion boo xamante ne supporter dinañ ko rëccu lool te jile Portugal donte le bu ñu xoolee ci li nga xamante ne moom mooy li di tournoi bi maanaam euro bi seen jaloore bariwul lool ndaxte ñoom troisième lañ jëloon ci wàllu phase de groupe digganteem ak Hongrie ak ki nga moom mooy Islande ñu am ci ay ñetti match nul waaye Seleção bi dem génne ki nga xamante ne moom mooy Croatie ak it ki di Pologne loolu yëpp ci ay tiro bi ci wàllu quart de finale. Cristiano Ronaldo ak ñi mu àndal moom mi nga xamante ne daanaka jël na option bu am solo ngir jël baloon d'or bi. ñoom def seen kéem kattan ba génnee ki nga xam ne nag moom mooy Pays de ci wàllu demi-finale euro bi ñu dóor leen ñaari bal ci dara muy gulet kon ñuy gagné ci li nga xamante ne moom mooy euro bi waaye nag li ñu ci mënta jàpp mooy ak ndam li Portugal daal dina am ndamam bu njëkk ci wàllu euro muy lu am solo waaye li ñu ci mën a jàpp tamit mooy France mosul ñàkk ci kanamu Portugal depuis atum 1975 niki noonu it France. nous dans Allemagne ci compétition officielle depuis 1958 ba mes ci ngoon demi-finale Portugal comme jël le ndam li daal humilier France sa Stade de France

Portugal daal di damli ndam li ci wàllu euro 2016 muy gulet kon ki di Portugal di ko am amena ki nga xam ne nag Eder du kenn ku dul koo xamante ne Bissau Guinéen la mu ngi judd ca capitale Guinée Bissau te fa la mu am léegi ñaar fukki at ak juróom-ñett ñu bëri xaaruñu ko woon ndaxte moom ci wàllu boppam bi ko sélectionné ci coupe du monde 2014 ca Brésil ñu bëri xaaruñu ko woon mu def match ne dara ba ñëpp ni ko lam-lamee ne waruloon bokk ci groupe bi ci internet bi moom saaga yi bari lool ñenn ñi di ko xas li ko waral mooy mënul sax contrôler waaye dimanche fukki fan ci weeru sulet ñu bari fàtte nañ ko ndaxte moom ci wàllu boppam moo siggil réewam muy Portugal ki nga xam ne nag moom dañ ko formé ca Sporting Braga foofu lañ ko gisee dañu ko transféré fi nga xamante ne moom mooy Swansea ginnaaw bu mu defee saison bu am solo ak boobu lee de Sporting Braga bu Portugal